asalaamaaleykum sama gars yi c'est Réal Fara teel ma dellusiwaat ok comme ni ngeen ko gisee ci titre bi bii dama leen a bëggoon a wan comme ça nan la ñuy augmenter maanaam nan la ñuy augmenter followers yi nga xam ne moom nga am ci Instagram wala bon ñi lay suivre ci Instagram nooy nooy nooy noo noo leen ni noo koy augmenter quoi sans pour autant xam nga abonné ci kenn. wala boog euh, ngay dem comme sa xaaral ma ñëw xaaral ma woon la dama comme ça flowers yi ok bii sama beneen compte Instagram la xaaral ok jéggalu sama gaay kii ba xaw xaar leen mu ñëw bi mooy suñ compte bi noonu ok léegi sama compte moo nekk nii lee bu fekkee comme flow si nii fii affaire bii fii nii tam am uh, tam am vingt deux bi nii vingt deux bi sama gars ngeen jéggal ma ma naan vingt deux jéggal leen ma vingt deux bi nii léegi bu fekkee danga ko bëgg a augmenter gratuitement parce que fii dañ la war a suivre pour mu augmenter woo yéen ma gën xam li muy wax fekkee danga ko bëgg a nooy def ok pour ko am na benn application boo xam ne nii xam nga benn application boo xam ne nii efficace na trop te application moom am na yu bari yoo gis yoo xam ne du dëgg mais boo moom dëgg la muy muy application bii nii anama sax muy application bii nii bii nii moo ngi tigg moo ngi tudd like pano leen ñu dem ñu xool boo xam dinañ ko gis man maa ngi ko téléchargé ci Play Store bi like panneau la tudd like panneau ok ok moom ngeen njëkk a jot nii gis nga mooy bii nii man téléchargé naa ko par après boo ko ibbee bu ñëwee nii lay def fa mooy interface bi noonu xaaral mu ñëw ok boo duggee ci interface bi par exemple bii dañuy dugal suñ fii nii fii nii lañuy dugal suñ sun euh, suñ adresse quoi léegi walla walla sa username fii nga koy du après sa username fii lay nekk boo ko jàpput fii lay nekk xaar ma dem lay nekk ma gaay da dugg modifier profil ok gis nga noonu to de utente ngeen ngeen baal ma li italien laa ko def bii yoon mais bon du si dara non de utente lay def mooy noom utente gis nga ma def si Real Fratelli léegi ñu dem xool Real Fratelli ñu def ko si application bi ba xam parce que bu fekkee dañ série bu baaxul tamit du ñëw ok li ay publicité la maa ngi jéggalu gis nga sama indi na ko moo nekk nii ci kaw léegi indi na ko moo nekk nii ci kaw après mu am vingt-deux flowers mooy nii léegi ñu xool instant bi amul benn boo ne may na parce que man dama ko def ba pare na taxawal am na tamit bu la nee tamit nga def ay like fii mais yii yëpp nag benn du si gratuite quoi mais bu la neexee nga def ay ay like ay j'aime quoi léegi boo fekkee yow booy doog a dugg dina la may cinq yoo xam ne nii c'est gratuit comme bii man dama ko jël ba pare mooy bii si kaw gis nga man dama ko jël ba pare mais bon bu fekkee yow yaa ngi doog a dugal kii bi soo ko bëggee jël gis ni soo ñëwee rek si saase dalay may cinq nga gis boo ko jëlee par exemple ni la notification bi ñëwalee nga xam ne lii amul benn amul benn caaxaan amul benn caaxaan wax dëgg yàlla dëgg la xam yoo xam ne nii dalay may cinq yoo xam ne nii c'est gratuit gis nga ok yii nii na moom day jaar bu fekkee da bëgg deux cent da ngay fay dix neuf euros bu fekkee da ngaa bëgg cinq yeneen nga fay quatre vingt dix neuf centimes wala soixante quinze nga fay. 99 centimes ok nga def nii après nga ñëw nga xool yow si ban façon banque nga am pour nga fay ko nga dugg foofu ok sama gars yi looloo doon vidéo vidéo tay bi bu fekkee am na si loo xam ne ni leeru la nga def ko si commentaire te ngeen partagé ko nag maximum de partage sama gars s'il vous plaît pan pan pan